siyaare te leen siyaare tey siyaare seen Pastef ci liggéey Sëriñ Amidoune bi nga xam ne mooy toolu àllarba bi tax kenn ku nekk taxaw na ci taxawaay boo xam ni mënu koo weesu taxawaay fariwu ko kaw ndax barki démb rek la ndogu yi jàll ngeen def ci liggéey bu rafet boo xam ni jàppoon nañ ni liggéey du ko fare kaw waaye magal gi nga xam ne mooy bis bi Sëriñ Tuubaa jóge ci géej gi te wàcc daru salam te Cheikh Anta ganale ko mam Cheikh ganale ko Cheikh Mamoun tey dekk bi di top loola ba mu aksi ba jaar ci sëñ Moudou aksi agsi ci sëriñ Amidoune mu liggéey ci liggéey bo, xamni ben benn la ba ci serigne Sidi mbake mi ak bayam serigne Abo yalla sun borom def mu am fanu gudd lol ak ak wer kon nak jëf lepp na jëf ci bisum serigne Touba bi nga xamni ci la ko liggeyal ba am ngeureumal yalla mam Cheikh Anta wax ni mooy sama bis fa yàlla bul ko wuute kon ngeen wuut ñàkk koo wuute ba noppi jëf-jëf ju réy ji soxna Ami neen mu ngi leen sant bu baax a baaxa baax a baax a baax ci turu sëriñ Sidi waaye turu ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ndax jëf ba jëf jeex jëfal ko mat a jëf rek kenn ma ci ke ci sëriñ Amidun dafa topp ñu war a topp ñëpp ba sunu borom teg ko fi muy jëmmi sëriñ Gaawaan di gëmmi Seex Mudu Maamun ba sunu borom yóbbu ko ci yërmandeem di ko teral bàyyi fi sëriñ sëriñ bi neen taxawaay bi rafet na bu baax a baax a baax soññi ñëpp section bu nekk mën nañ koo tudd waaye bu ñu waxee ñëpp rek bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw waaye ñu beral jigéen ñi nag seen cant bopp koo xam ni xam nañu liggéey bi bu àggee fii yéena ndax kenn ku nekk xam nañ ni nga ci taxawee kon mën nañ ni bu dee fukki góor téeméeri jigéen la bu dee téeméeri góor junniy jigéen la te waxuma la ñoom waaye kenn ku nekk da ngaa dajale say bokk nekk fa nga nekk am sa section. yéene ci kenn ku nekk li nga sopp sëñ bi neen mu ngi leen sant bu baax a baax li ñu fi dajale tey jii nag nga xam ne xeeb ngeen ko lool waaye sëriñ bi naw na ko toll na ci million ak téeméeri junni ak juróom fukk moom lañ dalee dajale tey jii sëriñ bi nag dafa bëggoon ñu tànn ay nit yu néew yoo xam dañuy dem jébbule ko ndax li nga xam ne moo fi xewoon mooy sunu jëwriñ soxna Fatim Mbacke moom sëriñ Mam mi nga xam ni moo njiitul kër gi di njiital daayira bii jiite woon liggéey bi sunu borom dogal mu nekkoon ak daaw te at sunu borom atte ci li mu ci atte sëriñ bi nee na tubaab sax boo amee ab xew-xew day ci ab drapeau ba ñu xam ne loola naqari na ko kon nag moom ab jullit du amu naqar waaye day am warma ju mu warmaal ki mu ko seqaloon ngir yàlla nen loolu rek moo tax waaye gërëm na leen sant na leen seen ab liggéey rafet na te mu ngi leen di ñaanal sunu borom faj seen aajo saaxiran lu baati naa kenn boo delluwaatee waxu la sa aajo faju waaye kenn koo yéene aajoom faju bu la tegee bët aajoom faju àdduna aajoom faju àllaaxira nee na mu ngi ñaanit ci barke Sëriñ Amidu mi nga xam ne mu ngeen di liggéeyal kenn ku nekk soxla sama am moo xam lu mu ragal la mu mën ko wax lu mu ñàkk koo mën a wax sunu borom xam na ko ci barke Sëriñ Amidu yàlla na ko sunu borom dàqal kenn ku nekk aajam jëm am moo xam man ko wax moo xam munu koo wax waaye sëriñ Amidoune yal na ko son borom fàcc barkeb sëriñ Amidoune waaye nag am nañ ci yaakaar ndax sëriñ Amidoune moom mu ngi bokk ci yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yushahidu ma tat akinaati nit ku baax moom ginnaawam la gën a man ci kanamam li sëñ fa waxoon ni seen sàmb mii dañoo wax ne sàmb mun kanam man ginnaawam waaye mu def seen sàmb mii waaye sëñ Amidun ci ñoo ñee la bokk ndax sëñ Mamadou Fadal moo ko waxoon ne ko Amidun baddil nañ ko sëñ mu daan la ko waxoon mbir dafa xewoon ñu dem ci sëñ mu Fallu sëñ mu moom sëñ mu daan wax ak moom mu ne ko Amidun baddil nañ ko sëñ Fallu waxal ak moom sëñ Fallu nag moom lu mu wax sunu borom moo ko wax biirug baddi na ku ci nekk baddiwaale nañ la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu Sidi Hamidou bake di ñaan mu yag fi lol te ànd ak guer ndax te jëf ji ñuy jëf xeb nañ ko ndax te li ñu yor ni muy un million kenn ku nekk bo xaron xolam la ca nekk ëpp na lol mu melni ni ñu dajale nga xam ne dañuy wax ne mbolo moy doole ñu dajale ko pour fas ki yene ko yobbu ci suñu yaakar tay ak ëlëk mu seedi Cheikh Sidi mbake di ñaan mu yag fi lol te and ak guer xeb nañ ko ndax te kenn ku ko mënon kenn ku nekk yene nga ci sa xol lo di nga yóbbu lu lii yow kenn ci sëñ bi kon nag euh, te euh, li ñuy def nii muy daayra lii nii dadi taarub yoonu murit ndaxte ñu xool jotaay bi ñu xool ñu xool ne ñi ci fi nekk ñëpp ñoo niroo ñu sol euh, nga xam ne loolu bi ko sëñ Seex Gaynde ma di def bañoon ab xeebante ak maa ëppale li maa dàqale li moo waraloon mbirum déguisement moo tax ñi ngi soññaat suñ bopp di leen soññu yéen ñëpp ñuy fexe déguisement yi ñu koy matal te tamit di tënku ci lii ñuy def nii ñu xam ne soxna Anta bu taxawee di woo nit ñi di leen kenn ku nekk mu lay woo naa la indil sa barkeelu euh, nekkul ne xaalis bi la bëgg waaye ñun ñi koy woo di ñu ko soññi ñun ku ko war a sant lañ ndax kaay ñu liggéeyal sëriñ bi képp ku la ciy woo sa sa defaru la bëgg te ki ñuy defal amut euh, ñemewul bor dafa am ak fay euh, ndaxte kii ñuy dem nii muy sëriñ Sidi Mbacke toog nañ ci moom ba tàyyi Euh, ñun nekk nañ fii di liggéey ba bañ màggal gi tey la bañ jógee ci waañ wi dem di tàggoo ji ci moom ñu waxtaane na ne buñ demee sëñ bi de war nañoo defal nangam bi ñu àggee yàlla seede ne na fii ma taxaw ni sama bàmmeel laa taxaw avant ñu koy wax sëñ bi nee na ba ngeen jógee fa ngeen nekk de avant ngeen ni ñëw xam naa ne nangam moo nekk ci seenam xel waaye nag dama leen di wax ne na leen yàlla defal tawfeex tawfeex mooy lépp ndaxte kii ñu defal bis bi tey jii nga xam ne moo waral lépp muy maam Cheikh Anta Mbacke ba muy jëndal euh, Serigne Touba mi nga xam ne moo doon doonoon wasilaam fukki oto yaak ñaar ba muy dem fa mu koy jëndee nangoon nañ ci suñ kilifa gi muy Serigne Sidi Amidou Mbacke mu ne ba muy dem yóbbaale wu xaalis taw tawféex la am fa taxaw woon di e jënd oto ya falam nañ jënde fukki oto yaak ñaar fa ko fekk te euh, loolu ak dogu la ndax dafa jiitlanteeg benn oto mu romb ko mu ne chauffeur bi dawalal chauffeur bi ne ko ah daw naa li ma man kee dama gën oto mu ne ko da bëgg ne Serigne Touba bu ma yónni woon sama yaakaar kee kilifaam yónni ko kee kon mais moom may raw mu ne ko waaw Mbacke ndax dalaa gën euh, daamaar mu ne ko nañ dem fañ koy jaayee bañ àndee bañ àgg fiñ koy jaayee mu ne mbaam laa cee njëgg ñu wax ko ko mu ne kee ñaata la ci am ñu ne benn mu ne man fukk ñaar laa ciy jënd ndax su ma sama sëriñ yónni woon fenn yónnee feneen ba mat fukk ak ñaar bëgguma benn tardé ci kon nag euh, suñu yaakaar joojoo tey jii euh, na ma ko daan waxee laa koy waxee ñun ñii de li ñu gëm mooy Daaru Salaam la ñu yaakaar maam Cheikh Anta Mbacke lañu yaakaar Serigne Modou Mamoun lañu yaakaar Serigne Amidou la ñu yaakaar Serigne Sidi Mbacke la ñu yaakaar te na ma ko daan waxee mooy tey jii mbooloo mi képp koo ci xaran euh, xolam li ñu ciy fekk mooy bu Serigne Touba del si waatoon jamono nee nañ tasaat yoon wi ku nekk ñu defaraat ko ku nekk aw fa nga bëgg aw ñun li ñu wérte wóor mooy Daaru Salaam la ñuy aw si waat Serigne Sidi Mbacke la ñuy defaat suñu wasila kon nag yàlla na fi yàgg te wér lool ñu yàgg ko fee fekk lool ñun ñi nga xam ne ñooy mbooloo mi di dajale di fi indi suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm maa ngi ñaan ci barkeeb Daaru Salaam barkeem maam Cheikh Anta Mbacke euh, tawfeex je maam Cheikh Anta amoon yàlla nañu Serigne Touba defal ju ko raw ba lépp luñ soxlaati mu faju ndaxte tey jii rek fee ñu toogoon di ci waxtaan nii ci bisu màggal gi di dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ngir def ko fenn wala yu demee noonu kenn ku nekk yaa ngi xalaat naan nañ ma ñaanal. Euh, ba bu ëllëgee li ñuy dajale man man man kese ma man koo def kon euh, yéene jaa ngi ci bëgg-bëgg baa ngi fi te wér nañu ne nuñ ko bëggee mbooloo mi ñun ñëpp noonu lañ ko bëggee kon nag yàlla ñu Serigne Touba defal tawféex defal ñu taysiir defal ñu shahadatu daarayni barkeb Serigne Touba ak Cheikh Anta euh, suñu wasila yi di Serigne Sidi Amidou Mbacke tamit ñu ngi ñaan ci barkeb alxuraan a xasida yi lépp lu Serigne Touba di séddale ëllëg lépp lu maam Cheikh Anta di séddale ëllëg yàlla bu ko ci kenn ëppale te am nañ ci yaakaar lool. am aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazaati shayatini wa aouzu bika rabbi an yahdurun wa dammiran kullu a'daayin tudirru bina qabla al-wusuli lana ya Allah ya Allah وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبكي جينا بنو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي بو با اك سلمل سانغوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي سانتو با سيرين توبا سيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول منو ماي جامي تاي اك سولغي دي نيانال شيخ محمد المنتخا سونو بروم ياغال كو في لول تاماي كو وير غيرام di eh, nuyu ak di siyaar mbooleem waa daayira tollu àll ba sëñ Sidi Mbacke moom Sëriñ Amidoune di jëdë ci nuyoo bi ak bi sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Amidoun moom Cheikh Modou moom maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér géram kéemaan na ko def ci ki nga xam si ni mooy sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Amidoun euh, mu mel ne rek comme ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu niñ ko waxee rek noon foofu rek la ñuy daal di euh, sosaat sunuy kàddu foog naa ni lépp sax matoon na. waaye da ay kàddu moom saa soo xamante ni kilifa sàkku na ko ci euh, benn jaam war naa doxe doxin woowa te moo di li Sëñ Tuubaa di wax la tavalu cheyaan bi xeyril isni fal isnu chartun fii xabuli chahni loo waral ñu yëkkati sunu kàddu ci turu Soxna Anta mi nga xam ne euh, moo jiite mbooloo mi ci jiite bu rafet ginnaaw loolu wala boog bala ñoo tàmbali sunuy kàddu dañuy fàttaliku bu baax Euh, sunu bàjjen euh, sunu lépp di soxna Faati Mbàkke euh, moom sëñ Sidi nekkoon fi jëwri ni liggéey bi ndaga ni si daaw mu toog fii ñu toog sunu borom dogal mu jiitu ju ñu ab liggéeyam mat di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax liggéey bi nga xam ne si nii moom lañ koy eggaleel yal na ko fekk fa mu nekk yal na sunu borom dooli ko yërmande yal na ko yàlla doole njëggal te xaare ko àjjana waaye njaboot gi mu fi bàyyi yal na sunu borom sunu boroom teg ñoom loxo ba yéen a jëm eggale ko di sant bu baax a baax soxna Anta bi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam di ko ñaanal nag ñaan goo xam ne yal na doon ñaanu xaas yal na ko sunu boroom wéral may ko kattan ndax euh, kaay ñu ànd liggéeyal Serigne Touba képp koo xam ne wax na la ko rek jàpp naa ne kookee mooy ki nga xamante ni mooy ki la bëgg waaye kookee booy lim say xarit booy lim ñi la bëgg bay ba nga boole ko ndax ñi lay seetaan duñ dem te néew ñu la kaay ñu dem wala boog fañ dem jëmuñu fu kenn xam. kookee jërul def soppee jërul def xarit ndax amaana boo àndeek moom fa la jëmee du doon fa gën waaye fii moom ku ne xam na ni jataay la boo xam ne tey jii sëriñ Amidun bu wàccaatoon fii kenn du buuse ndax ci ak bëggam rek ca lañ nekk kon jataay bi ñu ngi ñaan yal na sunu borom yàggal ko lool te may ko wér gi yaram te may ñu wér gi yaram te may ñu itamit liggéey boo xamante ne sunu borom dana ko nangu may ñu ay xéewal waaye tàggatal sunu xol ba du génn sëriñ Tuubaa benn yoon ndax ku ci nekk ci ñun ñi sa yéene mooy liggéey Serigne Touba waaye léeg-léeg seytaane moo ñuy fëkk ba nañ ko bëggee duñ ko naame kon nag yàlla nañu suñu borom tënkal seytaane ba lépp loo xamante ni am nañ ko rek ñu jébbal ko Serigne Touba te nañ xam ne lii nga xam ne moom la ñu Soxna Anta di laaj ñu di ko yóbbul Serigne Touba buñ jàpp ni lii sëñ Sidi lañ ko jox de lii sëñ Touba lañ ko jox sëñ Sidi daa nekk lantinoor boo xam ne dañ ko teg ci loxoom ndax ñun gis ñu sëñ bi mu tegal ñu ko ci ay loxo waaye nañ xam ne lii sëñ loxo sëñ Touba lañ ko teg kon na ci ñëpp gën a bàyyi xel na ci ñëpp gën a góor góorgóorlu ndax fi mu nekk nii tey jii ci ñun ñii di ay soxna kuñ ci seet doon góor ak ndey 1000 francs di nga dem lebi fukki junni wala ñaar fukki junni joxe ko te lu ëllëgee doo ci am lenn lu dul euh, daani sunu borom kon nañ ko bàyyi xel baax baax ñu gën cee góorgóorlu kon xanaa dañuy lim li nga xam si ni mooy section yi waaye tamit di sant nag bu baax a baax a baax bàjjen Ami Mbàkke moom sëriñ Ami Dun nga xam ne moom jataay boo ñu gis rek danga ko ca fekk te ñuy ñëw di ko ziar waaye bëgg Serigne siidi mi nga xam ne moom la suñu borom teg muy xalifa bu Serigne Amy doon tax na amul benn yitte lu Serigne Sidi bëgg rek soxna Amy mi ngi muy guddi muy bëccëg muy taw mbaa muy mbaa muy mbaa muy euh, naaj heure buñ gestoo rek gis sëñ soxna Amy ci suñ suñ kanam mu ñuy wéttali ci jataay bi tey bu taaroo rek moo ko taaral kon Mbàkke ñi ngi lay ñaanal suñu borom guddal saw fan wéeral say cër ànd bi yàlla na yàgg ànd bi yàlla na yokk lépp loo yéene ci mbooloom yéene ko ci sëñ Sidi yaa na sunu borom dafa laj lu kawe sa njoot kon ñi ngi sant mboolem section yi nga xamante ni ñoom lañ séqal liggéey ndax ñun ñuy toog rek duñ mbooloo mi tey mbooloo mi fekkonte ñëpp toog nañ fii duñ fi xaj waaye ñii dañuy ñëw ci ndogu yi ñii ñëw màggalu daaru salaam ñii ñëw màggalu poroxaan bu ñuy ñëwee ñee toog ñee ñëw ñee toog moo tax section yi faaw ñu sant leen gërëm leen ndax saa su nekk guddeek guddeeg bëccëg subaa ngoon ñi nga ànd ak ñun rawatina nag section yi nga xam ne moo nekk Touba ñoom heure bu ñu wootee le 10 rek dañ leen gis ak ñi nga xamne ño nek nekk Daaru ak liko wër section yi nga xamne tamit ño nek Tuuba Daaru Salaam ya tamit machallah ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa ba ndax gis nañ seenu taxaway ci li nga xamne moy liggey bi waye section wa gawan yeen tamit ñi ngi leen di sante cant go xamne amna fu mu tambalé waye amu fu mu yam section wa Dakar yeen tamit ñi ngi leen di sant di leen gëram tamit kasalik ni ko noonu mbooleem section yi nga xamanteni ño aju ci gox bobu rek sant nañ leen gërëm leen waye section yi nga xam ñoy kër ñoy gadd kër Amadou ak liko wër ñooñu ñëpp gis nañ seen taxawaay duñ leen raw benn yoon section Bambey tamit gis nañ seen i taxawaay section Bambey séeréer tamit macha allah ñoom tamit ñi ngi leen sant di leen gërëm section waa Kër Baye Ganna ñoom tamit ñi ngi leen sant di leen gërëm section waa Ngiij macha allah seen délégation gis ngeen ko ba ñëwee ba tey ñi ngi takk seen laxasaay ànd ak ñun li nga xam si ni mooy liggéey bi waaye section Mbour tamit ñi ngi leen sant di leen gërëm section Sam ñoom tamit macha allah gis nañ seen taxawaay waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew nag nga xam ne mënuñoo teew waaye ñoom tamit saa su nekk ñi gis seenu liggéey muy waa Touba Allemagne waa Touba Italie waa Touba Amérique waa Touba France waaye waa Touba Espagne yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm section waa waa Mbora tamit gis nañ seen taxawaay kon daal dafa mel ne kaddu yi kaddu yi cant la ak ngërëm yoo xam ne xëy na ci sunu làmmiñ la sunu borom jaarale waaye mi ngi bawoo ci jëmmi sëñ Sidi Mbàkke moom sa ñaambilul yaakaar naa cant geeg ngërëm gi saa su nekk ñi ngi koy ñi ngi koy dégg ci moom ak ñaan gi kon nag ñi ngi ñaan nii ñu fi teewee nii ci bis bii yàlla na bu dewee ne ñu teewee ko noonu te di ko teewee ay yu bari ni ko sëñ Sidi waxee bis bi attan na lépp ndax nee naa leen bis bii bu amutoon dara du am sëriñ tubaab bu ko tubaab yi sàkkaloon pexe kenn du bis kon bis bi moo waral lépp kon bis bi nañ xam ne du bisub maam Cheikh Anta donc waaye bisub jullit ñëpp la. waaye bisub murit yëpp la waaye bisub nganale la bisub bernde la kon nag ñi ngi ñaan bis bi yal nañ ko yàgg a taxawee te suñu jëf ji yal na bokk ci jëfi waqdi xawaay ja lazina daamu bi xidmatin wahab law maaraam waa Touba Mbella TV di site internet bi nga xam ne saa su nekk liggéeyu sëñ Touba képp ko ñor ñi ngi leen di cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbale waaye am fu mu yem ku leen di topp rek gis ne xam ne ñun suñu ay image bari na ci internet bi ñu nekk ñoo xam ne dara ñorul leen lu dul liggéey sëñ Touba amul lenn lu ñu soxla ci liggéey bi lu dul ngërëmal sëñ Touba ngërëm sunu borom defal leen ko seen télé bii dem nekk ay télé télé télé ak si site internet yi nga xam ne si nii ñëwoon na kon ñi ngi taxawlu foofu di wax wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullah